présence su presse bi la presse locale comme la presse nationale di defaat benn jeunesse bu ndaw rek di wax ni collectif des jeunes Médina euh, ay ndaw ñoo ko ñoo ko sosoon ndaw yi ko sosoon nag dañ koy sos ñoo ñëw gis ni lu ñëpp bokk ñu ngi koy bëgg a jox kenn moo tax ba ñu gisee loolu kat ñu ne lii nañ dem bind kilifa gi nga tax ni moo ñu moo moo moo yeeyoo loolu muy le maire Bamba Fall ci lañ ko bindee courrier à deux reprises tontuwul ñu ne ah kon nañu dem xooli gëstul suñu bopp ci lañ defee ay pexe ba jadoog promoteur bi promoteur bi wan ñu benn contrat que ni contrat bi boo xam ne dara liyewu ko ci lañ demee gis euh, conseil municipal yi conseil municipal yi war ni ñoom benn délibération lañ def ne jox nañu maire ndigal pour mu jël gazon synthétique ou jël ku partenaire boo xam ne da kay tegal gazon synthétique ci terrain bi ba ñu defee ba ñu ba defee loolu ñu gis ni contrat bi mu tënku ne jox nañ ko autorisation pour mu signer partenaire pour mu privatiser terrain bi ci lañ ne nañ jug sol suñuy dàll waxtaan ak nit ñi dugg fépp ci Médina bi waxtaan ak ndaw ñi ba ndaw ñi jox ñu seen kàddu wóoluñu ñu def fi marche bu rëy wax ni d'accorduñ ci projet bi terrain jaraaf nag lu tax d'accorduñ ci ñu privatiser ko waxuñu ñu defar ko de parce que yëpp lu baax lañ bëgg mais d'accorduñ ci privatisation bi ndax mooy seul espace boo xam ne moo ñu dese au niveau de la Médina foo xam ne tey jii dafa régler climat social bi apaiser ko fii ci Médina soo xoolee tension yu bëri amatul wala wàññeeku na bu bëri ci nawetaan bi terrain jaraaf moo ko waral ndax sélection yi fa doomu Médina yi commencé woon def bokk ndey bokk baay moo si kaw loolu tamit ci la ñu gis dem euh, bind monsieur le sous mu laaj kilifa gi ñu tënk ñu ñëpp muy Bamba Fall kat nag ma indil autorisation de construire nag ma indil euh, délibération bi tënku si lool ak contrat bi la léegi waaj parce que tey jii nii su doon contrat bu sérieux la da ngay gis ni kat monsieur le maire mooy chargé légalité mooy contrôle légalité si si commune bi donc kon du du ko laaj document yooyu yëpp parce que da koy fekk mu yor ko moo ñun ba ñu bindee nag ba loolu tënk ñu ba monsieur la monsieur le sous-préfet Djibi Diallo def arrêté ni arrêté na travaux yi ci la ñu commencé enclenché benn procédure judiciaire bu procédure bi jël temps ba tey nii amaguñ ci suite looloo tax mbuguñu woon tamit di jëngu di wax si loo xam ne waxu neen la rek noonu ci lañ toogee ba bërki démb wala démb ñu gis monsieur le maire def benn sortie ne terrain jaraaf daf ko delloowaat jeunes yi di ko fàttali ko rek ne ko teree jaraaf musul jóge suñuy loxo bañ ñu koy delloowaat parce que suñu moom suñu moomeel la ñoo ko moom di wax ni tamit lu tax boobu ba tey deful loolu bàyyi ba ba campagne di jot 52 jours si campagne des si si élection des si nga taxaw ne da nga koy dellowaat population yi kon ça veut dire que waxee waxoo lu neex population yi mais dangay ngay pour pour ñu voté waat la boo beneen beneen beneen problème mooy tamit nee na benn benn nit moo ñëw fay kii bi tey jii pour pour rappeler rek que mairie dara mu nekkul secret parce que mairie institution publique la tey ku soxla compte bancaire u mairie sax bëgg a xam lan moo nekk ci compte bi danga war a bind ñu jox la ko donc tey jii nii kuy dem bay verse noonu war nañ xaalis xam xaalis boobu kan moo ko joxe fan la ko jëlee est-ce que xaalis boobu licite na wala licite dul parce que tey jii nii terrain jaraafkat duñu sàggan ba di ko di ko perte donte ko mosuñu koo perte sax mais bëgg nañ muy moom ak keneen ñeneen ñu bëgg a ñëw diriger Médina ñu sàmmal ñu suñu suñuy suñuy suñu suñu terrain jaraaf sàmmal ñu édifice public yi ñu fi dese. parce que tey jii soo xoolee édicule public yi fi doon nekk ñi ngi wàññeeku bu baax a baax te population bi ñu ngi gën a màgg kër yaa ngi gën a xat tey soo jëlee ay douche bëgg a yàq douche yooyu noonu def ko def ko ay appartement wala def ko ay magasin tey loolu tey te population baa ngi màgg ñu xam ne Médina dëkku liggéeyukaay la bëccëg da ngay gis ñu ku bëri ñu ñu bëri ñoo fi ñëw xëy si daan si seen doole ñooñu tey fu ñu amee suñu amee fu ñu suturlawee suñu amul fu ñu suturlawee nan lañ nar a def tey dëggu kër jàmbur tey dëkk jamono neexul koo dugg këram dina la bàyyi xel wala dara manqué fa ñu ne yow yaa ko jël donc pour éducule yi dañ ko war a gën a bàyyi xel gën ko renforcer koñ bu nekk wala secteur bu nekk ñu xam ni kat ku soxla gaanuwaay fii ngay dem moo tax tey jii soo gisee lu ñuy wàññee études publiques yi loolu su sous lay gën a indi ak salteel dëkk bi tey soo xoolee maintenant tey chantier yi fi nekk tey maintenant informé wuñu si dara suñu maire baal moom dafa jàpp ni benn société privée la boo xam ne moom mooy moom mooy dogal te tey jii mairie gestion part gestion inclusive la war a nekk maanaam léppay ñëpp la tey normalement tey euh, conseil municipal maire mënul def dara te conseil municipal àndu ci wala conseil mais da xool tey jii monsieur le maire suy wax day mel ni moom mooy mooy buum mi mooy boom mooy mooy def lépp mooy dawal oto bi moo koy fomp moo koy raxas te tey jii nii nga xam ni kon kii du nit koo xam ne day partagé wax dëgg yàlla ba pare ku wax mu mu ñu tam la dëmm te tey jii nii xam nga ñun tey jii mi ngi wax naan dafa am ku nekk suñu ginnaaw man defe naa ni loolu saaga suñu conscience la parce que tey jii nii ñun ñàkkuñu fayda ba benn nit jóge fële ñëw naan ñu jaar leen gauche wala jaar leen droite te jeunesse médinoise di ñoo moom dafa dafa wane ni jeunesse bi dañ ko raw ci esprit parce que tey jii jeunesse bi taluñu kenn ku taxaw naan leen ay jaar leen nii wala ma fay leen nangam wala ma fay leen nangam ñun loolu doxuñu ci waxuñu ci moo tax ba ci liste électorale yi di ñu si proposé ne ñu kaay leen ngeen dugg ci mais xam nga lu tax ñu bañ bëgguñu si woon dugg parce que ñu nekk comptable si keneen kuy ñëw gestion bu muy def ñun dañoo bëgg a suñu constance suñu constance mooy lan mooy taxaw di veiller si intérêt Médina ak liy jëmale Médina kanam keneen ku fi nekk xam nga tey duñ la ne yow yaa ñu yow yaa ñu jàppale woon kon yéen vous êtes comptable de cela non on nous on veut pas être comptable on veut être garant de la sécurité des biens publics de la Médina. Mm-hmm. Euh, moo tax dugguñ bëgguñu woon dugg si beneen liste. ñi ngi interpellé tamit di ñu wax ni par rapport ak membre yu nekk ci collectif bi di di politique tey collectif bi dafa regroupé ay antité politique yu bari tey soo xoolee waa CAT bi ñi ngi fi waa APR Médina ñi ngi fi soo xoolee waa kii euh, waa PUR ñi ngi fi tey tey soo xoolee waa yeewi askan wi waa ñi ngi fi waa horizon 2035 soo xoolee tey ñaar am ñi ngi sant yàlla sax yàlla may nañu ñaari candidat yoo xam ne si collectif bi lañ bokk mooy monsieur Pape Momar Diop si collectif bi la bokk nekk du ñu conseiller bu suñu orienté si affaire politique. di métti madame Awa Diène tamit femme bu am valeur recevoir ñu këram ba ñu ñëpp di dàq moo ñu recevoir këram waxtaan ak ñun. ñu leen di souhaiter candidat yëpp bon chance sauf. monsieur le maire Bamba Fall di ko ñaan moom yàlla na ko yàlla jëlee fii si jàmm ak salaam indi ñu ku gën nag si Médina ñun loolu la ñuy ñaan quoi di wax ni tamit beneen beneen côté bi mooy par exemple euh, institution yi institution yi foog tamit tey jii nii ñu respecter la jeunesse muy institution yëpp nag mooy pouvoir comme tey jii nii ñi nga xam ne ñoo nekk pouvoir local comme pouvoir national foog ñu xam ne jeunesse bi dañoo am yeneen alternative dañoo am yeneen projet ga fii jeunesse jeune ay jeunes ambitieux ñoo fi nekk ñoo xam ne tey jii kat soo leen xoolee nekkuñu si yittey kenn lu dul yittey loo xam ne daf leen jëmee kanam ak lu jëmale kanam seen njaboot loolu la ñu amoon lu ñu tënk wasalaam. xam na ne moom nga posé. te boo xoolee jamono bi mu toll nii suñuy acte yu bari ci li nga laaj la nekk parce que gis nga ñu keroog ñu fubal ak polisu Médina dem ñu fubal ak presse Médina loolu yëpp pour woo nit ñi ci non à la violence parce que maintenant suñu Médina la kon dañuy sàmm li nga xam ne ne tey mooy li nga xam ne fa la ñu dëkk du coup gi dañ leen ñuy woo xamal leen ne muy Bamba Fall di keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñëpp waa Médina lañ ñun lee ñuy woo élection yi di ñëw nañ ci dem ak ci non à la violence parce que tamit ku ci gaañu ku ne xëy na cofeel xëy na moom mooy tax ngay def yenn yi mais nañu ànd ci ànd ba nga xam ne ne euh, àndu maturité lay doon àndu responsable lay doon ku nekk fi nga nekk nga représenté ko dignement et que le comme on dit parce que non à la violence moom la ñuy prôné ci moom la ñu nekk di ci dox boobu ba tey vraiment c'est une question ba nga xam ne ne une question intéressante te loolu la ñuy ñaan ci jeunes yëpp que ñun ñu ànd ku ne nga nekk fi nga nekk mais nag ci non à la violence loolu daal la ñuy ñaan jeunesse su Médina bi yëpp ñu conscient ci loolu te xam ne ne politique kese la len du leneen lu dul politique loolu daal lañuy ñuy ñaan euh, sunu morom yi na ñi dem ci non à la violence daal voilà sama ñëpp defe naa comme ni ko Amadou Deme waxee ñoom Abdou Mbaye waxee ko maire bi foog mu jàng du ñu respecté ñun waa Médina ñun dañ naan avant toute chose alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ñu doon taxaw du ñu sikkal depuis ñun commencement naan ñu da ngeen ni politique dafa am ñu nekk seen gannaaw dafa am li ak la l'histoire nous a donné raison parce que vous étiez témoin yow buur yéen ñi fi toog ñëpp. taxaw na fi ne carrément sama bakkan laa si teg un sous-préfet corrompu un sous-préfet saaga corrompu tuddee ñu ay golo tuddee ñu ay lépp nañu carrément fan ngeen mësa gisee terrain synthétique bi nga xamante ne dañ koy privatiser ah, te kenn du ci fay sama bakkan laa si teg maanaam par force travaux yi day egg Lamine Diop tontu woon na ko boobu ne ko xam nga da ngay wax rek li ngay wax nii di nga xam ne da fi fekk ay vrai booy Médina booy Médina bu jàppee du bàyyi. ñu jógee ci loolu moom ci wàllu boppam lan la leen waxoon lañ leen waxoon lépp defe naa bu doon ay fen tey dëgg gi dafa leer dëgg gi fa la leere moo commencé la décortiquer benn par benn ñun suñu discours boo leen ñuy dégg commencement dañ leen doon wax ne terrain Gibraltar yaa ngi dégg titre foncier la Gibraltar moo ko moom kon loolu bu ci waa Médina espérer tey l'histoire nous a donné raison Soham Wardini ñëw na ci dugal 200 millions waaw wala déet mu koy tiitaroo naan carrément moom ak loolu c'est pas vrai. bu mu nax nit ñi ñun commencement la leen leen doon wax depuis ak élu de valeur doon leen wax ni carrément projet bi boo gisee délibération bi ma dellu siwaat bi lañ leen waxoon le maire est autorisé à aller chercher un promoteur pour la pose tour pose boobu lañ doon insister à chaque fois pose de gazon synthétique jëlaat leen vidéo gars yi pose maanaam dañ ko lan la woon ville de Dakar même na Médina pour ñu defar ay terrain om terrain yu ñu ko mayoon pour lan maire bi moom dañ ko autorisé pour mu dem uti ki nga xam ne moo ñu ñëw la lalal gazon synthétique bi sa la jël affaire bi wëlbati ko uti un soi-disant partenaire am ñëw taxaw bëgg a jaar ci bay Médina yi moo taxoon na la mi jóob mii ak ancien joueurs yi ñoom ñoo ko démarré ñoom Abdou Mbaye di leen ci félicité parce que tey ñoom la ñu mérite bi ñoom la revenir ah, parce que ñun dañu toogoon suñuy kër man mii principalement man ñu ñëw fekk suñ ko ñu man ñoo ngay gis ne gars yi boo leen jugulee ñàkk nañu te commencement ba ñuy jug lan la ñu gars yi wax na leen gars yi ñàkk ngeen terrain bi bu leen sonal seen bopp kon loolu c'est mal connaître un vrai boy Médina boy Médina yéen xam ngeen yéen ñëpp ay ñu fi toll monsieur parti bi ay boy Médina leen bu ñu jàppee du ñu bàyyi gars yi dem ci dem vers l'information ba ñu demee vers l'information nag ci la ñu xam ni que terrain bi tout ta été faux du début à la fin montage financier bi lan la woon amul woon appel d'offre waxoon nañ leen ko fi absence d'appel d'offre commencement ñu ne leen autorisation de construire lan la ñu la waxoon boo tabaxee mur bu passé un mètre yàgg nañ ko wax fii lañ ko waxee lépp luñ ko wax ci kër gi lañ ko waxee dañ ciy dellu si waat mur bu dépassé un mètre da war a am autorisation de construire mu ne jarul autorisation de construire parce que terrain bi dañ koy defaat terrain affaire yooyu ñu ne ko da nga defoon nànk yow say cours dafa des ñu parewaat ñu ne ko lan moo la dañu bëggoon étude d'impact environnemental ba léegi il n'est pas dañee indi ko te étude d'impact environnemental waaye nit ki booy fubal ba minuit yi mu wër xanaa ñoom da nga leen laaj seen xalaat ASC yi fa doon entraîné xanaa da nga seen xalaat école de football yi ñun ñi nga xamante ne amuñu cent franc bu ñu fay mais xanaa ñoom du ñu laaj xalaat si lañ doon gëmloo indi na fi ay président ASC indi na fi Massamba ma Demba booy na ko hé kay fu ñu taxawoon duñ ci jugee looloo taxoon ñu invité woon fi ku ci mel ni un Seydou Gueye gis ngeen Seydou Gueye commencement ba muy wax sax da wax dina dem waxtaan ñu ne ko waxtaan nuñu parce que waa ji lu defe naa gars yi lu may wax nii répétition laay def nii ah bañ foog Seydou Gueye jógee ñëw Cheikh Ba ñëw Cheikh Ba tamit ne carrément Thierno Seydi sama xarit la dinaa dem waxtaan na moom waxtaan ak Bamba Fall ñu ne waxtaan nuñu nañu indil këyit yi mooy lan lu ko sous-préfet laaj sous-préfet lu mu ko laaj autorisation de construire étude d'impact environnemental euh, kii no délibération an na la doon wax naan bu baax na délibération bu baax sous-préfet est-ce que dina la si defal euh, kii sous réserve xanaa man mi euh, jàng too too tàppapaate yéen ñi jàng bokk ah xam ngeen ni carrément sous réserve mënul am si délibération kon délibération bu mu yoroon pose gazon synthétique moo ci nekkoon pour tontu la yow ni nga wax nii pose gazon boobu nag moom lay ñëw def nii mooy 200 millions yi mu def léegi kan moo ci des dañuy utal distributeur ñu leen posé gazon synthétique bi kon projet bi projet Khalifa Sall la woon waaw wala déet ñu jóge foofu day jël cent million dugal ko ci pour tabaxal ay leneen ak leneen ak lan la mooy lu yi wax léegi Bamba Fall Bamba Fall Bamba Fall ba muy ñett respecté waa Médina naka la conseil municipal 2021 di réunir benn yoon pour lan pour appro approbation mooy xaalis bi nga waroon dem récupérer à part loolu ban conseil municipal yow boo demee bay taxaw naan da ngay dem pour def ay projet ak leneen lu mu ci doon dem mais xanaa sa conseil municipal moo war a valider tey dégg ngeen fan yi passé gars yi indiwaat leen public ba mu naan ay golo yuy wax délibération délibération moo koy abrogé waa wala déet moo ko wax waa délibération bu génnoon bu amee beneen délibération bu dugg ci terrain jaraaf waay waay conseil municipal war naa taxawaat waxtaan ñu wax ko loolu moo ci am ak kan moo nekk ci gannaaw dem naa ci samay partenaire dem naa wuti eh soo am wàllu nii moo nekk ci gannaaw lépp échappatoire lay ut parce que moom xam na ni carrément bu euh, kiiwul instant bi problème na kay am parce que ñu pare wuñu woon cour suprême lañ doon jëm ak moom cooli moo bëri woon ñu amoon tam jox ko suñuy avocat ñu naan tekk di ko déglu di xool exactement parce que tamit nit ki munoo dem tribunal ba pare da ngay fajal sa bopp ñu dañoo dem kalaame commencement ba gars yi demee gis affaire bi doxul dañu dem def pétition on est dans un pays de droit 430 signatures ba ñu demee daf ñu jox yoon au moins ñu woo ko ne ko carrément ay booy ñëw nañu nee nañu ñu ci projet bi indi ñu autorisation de construire étude d'impact environnemental euh, contrat ak euh, ki mu mu mu gën a yomba sous-préfet daf ma contre Macky Sall daf ma contre Cheikh Ba moo nekk seen gannaaw Seydou Gueye moo nekk seen gannaaw një génnam mbële paase lan la ñëw taxaw ba muy def meeting ne carrément diw ak diw ay ñoom Cheikh Ba ay ki ñoo nekk suñu gannaaw kon daal booy Medina ñun waruñu xalaat ñun amuñu xel non non non non ñun muusuñu amuñu xel jànguñu ñun daal daal ñun dañuy womat comme mbaam biir terrain jaraaf bii Bamba Fall eh li nga bëgg a def bu ah, merci da ngay remercier comme da xam bëgg nañu lu baax ci Médina de bu dee pour ku delloo xaalis promoteur bi yaa may dégg ah, ñu Médina moomaat terrain am comme ni nga ko waxee ba tey baax na de mais ku ndóobin rey sa maam foo seen lu ñuul daw ba nga doon teg dil ñu jàpp la. yow ñu laaj la ay kayit amuguloo ko indi woo ko nga ne un partenaire mais partenaire boobu yéen journaliste laajaar lañ ko kan la na ko génnee ñun bañu du de nu ñu génnee partenaire bi parce que kaale ma yëgal la mais rachat contrat am na ah. Thierno Seydi mën na cóol moo xam na cóol na mu ñëw beneen waaye génnee xaalis jox ko le temps mu gëmloo ñun dinañ ko defal bu élection yi passé tey yàlla bu mu gañee sax mu gañee fi woon tey ñëw taxaw na lu carrément instant bi loo mu ci mën ay GMA la fi ñëw teg c'est le maire conseil municipal moom moo koy gagné su ko gagné gars yi nga naan taxaw lu tax poli lu tax collectif bi bëggul Bamba Fall gagné gars yi da ngeen di fàttaliku stade Assane Diouf bu mu ñuy tudd lan moo taxoon ñu combattre Ablaye Wade en 2009 yéen waa Benno Siggil Sénégal laay wax waxuma Benno Bokk Yaakaar Benno Siggil Sénégal 2009 li tax tey jëm si yàlla ñoom Birame Saa Suñu yëpp falu da ngeen campagne euh, stade Assane Diouf ndax lan parce que xam nga da ngeen di doon ne bu fi Ablaye Wade faluwaatee yaa may dégg kon day ñëw taxaw da ngeen koy may yoon lu mu defee lu ko neex kon bu fi euh, Bamba Fall faluwaatee su boobaa de am yoonu def lu ko neex tey lu mu ñuy gëmloo promesse électorale la pour la nësaxal xelu nit ñi ñi ñi bàyyi mu sedd suñu bàyyee mu sedd diggante bi mu gagné am légitimité am plus de euh, la moitié wu conseil municipal bi ñu voté laat ko lu mu neex mu reprendre les procédures après ñu ñëw fi du dóorante waat ay lacrymogène loolu lañ fa dul def moo tax ñu ne ko balaa ngay tegaat xeer comme ni ñu ko waxee ñun ba léegi dañu constant lu ñu waxoon ba léegi teggiwuñ ci centimètre mooy lan balaa ñoo ibbiwaat terrain bi xam na da nga waxoon di menacer nit ñi ñu ne la carrément lu ngay wax doo ko def parce que kaay ma yëgal la bu dee gay gars yi la gën a naan yat fop gars yi la gën a sakk xeer fop te wan lañ la ko wanati la ko lenn moom fi am mooy ñun ñoo kalaame te on est dans un pays droit pays de mooy lan le sous-préfet da ko defal arrêt préfectoral jofe naa wan neen leen ko les dossiers sont léegi ñun sous préfet la ñuy déglu balaa moo ibbi balaa moo def defe naa dina yóbbul sous préfet bi kan moo finance moo delloo see cennoo de xaalisam kan moom moo nekk ci gannaaw mbir beeg yëpp bu boobaa su dee lu ñuy wax ba mu leer ñëpp waaye bu boobaa bu terrain bi dellu si waatee ci loxoy waa naa Médina mu waa collectif la waa wala déet terrain déggoo bu muy wax eh JOJ yi la yéen ñëpp déglu ngeen ko xam ngeen ni dañuy defaraat stade Iba Mar moom mu ciy nganda ngandalu way nee na bu ñu paree dañ may delloo terrain ba xanaa euh, Léopold Sédar Senghor waa parcelle ñoo ko moom non dañu waxante dëgg xanaa Demba Diop waa Sicap ñoo ko moom xam ngeen ni terrain yi fi nekk yëpp ministère euh, des ñoom ñoo ko coaché si seen tutelle la nekk. kon bul gëmloo waa Médina yi wala du ñu nax naan ñu carrément woy terre ma tënk ci terre dañ ma koy defaat lan moo tax yow sa compte sa mandat jeexoon na 2019 yow ba ngay entamé mandat bi sax yow ba ki terrain bi euh, fekk na sa mandat jeex na nga bëgg a bàyyi ba ñun ne 52 jours moo la dese nga ne ñu carrément da ñuy nax yoo yaay Bamba Fall ñun dañoo kalaame ji woon. boo amee sa partenaire ak yooyu dama wan ko le sous préfet ñu ànd ak le sous préfet jëm ci dox wasalaam. ni ba ñu toog fàtte liñ daan wax man su ma xoolaatee video di yi ba xoolaat tey jii monsieur la maire ak lim ñu joxee dëgg ñun ñëpp damay rus sax mais dama naan alhamdulilah nekkitee dëgg daal dëgg alalu sunu boobam la ñu ngi ciy sant yàlla di woowaat nag jeunes yi ñu dal faral ñi ñu war a faral mais ñu bàyyi xel ne affaire bi du alal affaire bi gëm-gëm la. te yow booy xeex dara du yow yaa tax parce que lépp looy xeex sa liggéey moo la ko wax njëkk a may mais looy xeexal askan bi sóoraaleel seex doomu ëllëg parce que ñun jeunesse bi ñoo ko war a xeex loolu kase lañ leen di laaj ñu xeex ko ci ngor xeex ko ci jom mais tout sauf violence ñu gis ni da ngeen taxaw pour défendre li nga xamante ni mooy intérêt Médina. Uh-huh. tey jii nii yan message ngeen di euh, jox cinq candidats yi pour ku fi mënti toog mu mën a sàmm li nga xamante ne nii mooy ay intérêt wu Médina tey ban message ngeen di si loolu. waaw bu question boobu euh, pour man sax comme ci violence bi lii moo gën a yomb parce que ñaari ñaari camp la kii day wax bilan ñu xool bilan bu ñu doolee ñu fay ko ñu fal ko ñii dañuy wax li ñu bëgg a def ci Médina. bu ñu xoolee ne moo gën li ñu fal leen kon violence warul am kon dañuy wax ñaari camp yëpp benn camp bi la ñuy wax parce que ñun dañ jël position mooy képp kuy wut mairie Médina sauf monsieur le maire yàlla nga am ndam kon ñiy ñëw ñi bëgg a ñëw li ñu leen di xamal mooy lépp lu ñu diggee ak askan bi ñu def ko buñ ko defulee dañ jàkkaarloowaat ak ñun parce que ñu ngi ci yoon bi teggi wuñ ci suñu tànk mais di leen xamal ne moom bu falloo le 23 delloo teere bi askan Médina. Uh-huh. promesse électorale wala yéen seen xel mën na dal ci loolu. déggoo ma de Cheikh Ba ba mu ñëwee fii keroog kaddu yu ñu waxoon moo valable ba léegi collectif bi changé wul ku fi mënti toog maire nee na la désormais Médina ne sera plus comme avant loolu defe naa wax ju jeex la wax lu yomb la wax ju jeex la Médina ne sera plus lépp tout se fera avec la jeunesse médinoise xanaa loolu leer na. tout se fera avec la jeunesse médinoise Médina 2 bi bu muy ñëw naan piscine olympique xaw ma piscine lan ak laal waxoon na ko gars yi en 2014 ñun piscine olympique taxu ñu jël foofu école ba ma far c'est quoi son problème avec les écoles. c'est quoi son problème avec les écoles yow nga éliminé école école naa ko sàmm nga def ko 6 classes ah Médina 2 fu ñu toll nii amatul nga éliminé ko def ko fourrière municipale. yow fu ne mel naa xanaa ba ñu waxoon sax daf koy defal un centre multifonctionnel wala mu wax centre socio éducatif wala mu def ko ay sax chambre des métiers wala leneen ak leneen au moins mais daal moom daf ñuy foo ci lutte musique danse moom foofu la yem ak ñun. waaw gars yi wasalaam moo tax collectif bi bokkuñu ci liste yi lu ko waral na da ngeen taxaw pour défendre intérêt moo ko waral. léegi li ko problème liste yooyu tamit c'est important pour ñu leeral gaay yi am wax na ko léegi boo leen xoolee collectif bi. bépp parti à part waa Bamba ñëpp a bokk ci collectif bi Awa bu ñu wan la léegi whatsapp collectif bi mooy reste mooy candidature Yewwi Askan bi collectif bi la bokk Pape Momar Diop ci collectif bi la bokk ba ci wàllu Sénégal mooy PDS ak ñeneen ñi ci collectif la ñu bokk kon à part jàpp leen liste yëpp ñu ngi ci collectif yi waa CATB APR ak yëpp. mais moom lay wax. Ah, membre collectif yi. bokkuñu ci liste collectif. comme ni ñu ko waxee officiellement le collectif du soutenir benn candidat mais bépp membre collectif bu nekk ci biir collectif bi te ngay un politicien war a soutenir n'importe quel candidat à part Bamba Fall. tu la bénédiction du collectif. Mais le collectif en tant que tel ne va pas soutenir, ne, ne, ah, aucun candidat. Mais le problème en est que ñun dañu ko waxoo woon commencement suñu waxu commencement mooy suñu waxu leen tout sauf Bamba Fall. jam c'est simple. violence bu commencé am ci période préélectorale euh, préélectorale bi gis nañ fi seen benn membre bu bokk ci collectif bi am na fi coow barki démb ak ay nit yoo xamante dañu nekk ci yeneen ka yéen ban message ngeen di lancer nax ndax pare ngeen pour dem ci yoon wala. waaw bu jaajëf ci question bi di jaajëfal buuba parce que li mu leeral fi moom am na solo macha allah loo ci tegaat rek dañ ko ci yokk ci côté violence yi jeunesse su Médina yi ñoo war a yeewu rek ni ñu war a yeewoo mooy bu ñu xoolee li fi daan xew élection yi fi daan jàll jeunesse bi dañ daan téye seen bopp toog xamuñ ci woon dara mais élection yi jeunesse bi dañoo jug takk ci rip kon dañoo xam ne avenir bi si ñun lay dellu si te avenir bi bu waxee dellu si ñun jàmm lañ ci war a ñëwee duggee parce que buñ ci duggeewul jàmm dina ñaaw jeunesse bi li ñu leen di woo di leen wax ne ku mu neex xëccoo la ku mu neex am nga droit foo fax mais bu la kenn def looloo xam ne dañ la koy xeebee ndax fii àdduna la nekk xale taxul tamit nga am fulla xeexu gox la ñuy def parce que ñëpp dañu bëgg seen gox avancé parce que kuy wax avancement daa fekk li fi nekkoon baaxul